asalaamaaleykum mbokk internautes yi mbokk téléspectateurs yi safoo di seetaan TMS TV dalate leen seen télévision buy feeñal li nëbbu comme vous nous voyez nous sommes tout juste devant l'Assemblée nationale donc euh, nous sommes là tout simplement pour recueillir euh, quelques informations vous savez la commission ad hoc euh, se réunit aujourd'hui ce lundi maintenant sans la présence donc du député Ousmane Sonko nous attendons d'un moment à l'autre la sortie des députés pour pouvoir leur poser des questions savoir décision par rapport à la levée probable donc du député Ousmane Sonko donc nii ngeen ko gisee ñu ngi taxaw nag di xaar ngeen gis nag barrières yi fépp lañ barricadé donc ñun dañu wër ba egsi fii fépp fépp dañ ko barricadé mënuñu am accès actuellement ci côté assemblée nationale mais dañu ne ñu xaar fii bu ko defee bu député yi génnee ñu mën leen a tàllal sunu micro taataan xibaar pour dégtal leen ko yéen askan bi donc dégg des nag ñun tuuti ñu xaar député yi génn ñu fexe taataanal leen ay xibaar Bara Dolly Mbacké, président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie. Et finalement, euh, la commission, oui. qu'est-ce waaw ñoo ngi woon ci commission bi euh, daje nañ bi ñu dajee euh, li ñu def ñoom mooy jël nañu mbir mi nee nañ jébbal ko assemblée nationale nun nag suñu position mooy fa ñu ne woon démb bërki dem mooy àndun ci tey àndun ci ëllëg te suñu combat mooy continuer xeexal Ousmane Sonko pour xam le ne lii ñu bëgg a def nii jël doole jaarale ko ci doole pour mën a teggi immunité parlementaire nun loolu àndun si tey àndun si ëllëg. def ngeen jot def ngeen réunion bi est-ce que jot nga démissionné wala comme niñ la ko waxee. non man démissionné wu ma ndax li tax démissionné wu ma mooy dama am ay kilifa kilifa yooyu dama waxtaan ak ñoom ki ci jiitu di président Abdoulaye Wade président Abdoulaye Wade am na expérience ci état. am na expérience ci lii nga xamante ne mooy réew mi muy état am na expérience ci opposition mais président Pape Diop bu bokk gis-gis am na expérience député am na expérience nekkoon na président assemblée nationale président Mamadou Diop Decroix mi vice président bi aussi am na expérience ñëpp xam nañ fi mu jaar nekk na député nekk na opposant nekk na ci gouvernement Mamadou Lamine Diallo moom it naka noonu kon coalition bi nga xamante ne moom laa jiite. nun li nu tànn mooy des ci biir commission bi continuer suñu xeex ci biir commission bañ a def politique seize huit. donc finalement ban bi tey ñoom dogal bi nu jël mooy comme Ousmane Sonko ñëwul nee nañ dañu koy jébbal plénière bi. nun nag wan nañ leen ne leen waruñ koo jébbal plénière bi parce que nun àndun ci ndax ànduñu ci ñu teew bi immunité parlementaire bu Sonko. loolu mooy liggéey bi jeex na fu mu toll nii dem nañ directement euh, lu ci des dañuy dem directement plénière moo des. waaw ñoom loolu lañ wax. parce que noo waxaguñ ko. mais li ñu wax daal dañu koy jébbal plénière comme Ousmane ko ñëwul ñoom dañ koy jébbal plénière nu ne suñu combat mooy continuer xeex pour que suñuy wax mën a figurer ci li nga xamante ne mooy rapport bi pour ëllëg génération yi ñëw xam ne lii bi ñu koy def nun danoo bañoon taxawaay bii lañ ci taxawoon.

si peu de temps. Mais les députés quand même de l'opposition refusent tout, tout simplement de lâcher du lest. Donc ils ne vont pas lâcher du lest, ils vont continuer à se battre jusqu'au bout. Donc dégg ngeen euh, li Serigne Bara Dolly wax nee na nag réunir nañ réunion bi jeex na sans donc présence Ousmane Sonko dégg ngeen nag li assemblée donc nationale décidé ñu ne nag dañuy jël euh, mbir mi jébbal ko séance plénière mais nag député yi nee nañ duñ ci dal bañ nañ dañuy xeex jusqu'au bout duñ bàyyi seen loxo dinañ continuer daw di défendre Ousmane Sonko ngir bañ euh, ñu daal di dindi mbalaanu kiraayam nag des leen tuuti ñu xaarandi xool ndax dina am yeneen député yu génn comme ça ñu donc tàllal leen suñu micro mun leen taataanal euh, li fa jógee. alors sëñ bi euh, ñu lay laaj sa tur ak sant yaa ngi si ngi ci TMS TV ñu lay laaj sa tur sa sant. waaw man maa ngi tudd Abdoulaye Balde waaw Abdoulaye laa tudd sant Balde. est yaa ngi suivre euh, affaire bi soxal Sonko Ousmane Sonko. ah mais bien sûr bien sûr maa ngi koy suivre de près parce que vraiment depuis quelque temps moom moo nekk à l'ordre du waaw sinon xam nga man d'après le constat que j'ai fait euh, la boo xamante ni bon vraiment waroon nañ ko mën a bàyyi ci suuf mhm. étant donné que doomu réew mi la mhm. Euh, ba pare te c'est quelqu'un koo xam ne dafa am dafa am benn ambition mhm. vraiment waroon nañu bàyyi affaire yi jàll ci suuf quoi waaw mu sedd quoi vraiment moom moo gën quoi moo baax ci ñun bon baax ci xam nga gis nañ tey commission ad réunir nañ mhm. moom sax ñëwul mhm. am na ko ko fa teewal muy Aïda Mbodj mais nag comme ñëwul léegi waa assemblée donc dañu décider rek jël euh, dossier yóbbu ko plénière pour fexe nu ñu génnee mbalaanu kiiraay kiiraayam pour mu mën a wujj ci convocation bi lan ngay xalaat ci loolu. waaw parce que man depuis démb maa ngi suivre affaire bi ñu ngi naan ma même député yi àndoon ak moom à l'occurrence ñoom kii euh, euh, kii euh, Dieye nu mu tuddati. Dieye Cheikh Bamba Dieye. Mm-hmm. bon ñoom ñëpp dañu mujjoon a boycotté affaire yooyu génn ndax affaire yi bon de toute façon comme li ma la wax rek. ñële ñoom ñoo nekk majoritaire fële. Mm-hmm. dafay mel ni ni ma ko gisee ko genre jaay doole xam nga doo comprendre quoi parce que ñoom ñooy majoritaire. waroon mënoon nañu bañ a def loolu day mel ni léegi ñoom loolu dañ ci yàkkamti quoi et pourtant ñoom ñoom ñoom seen seen collègue la seen collègue la boo le fait que ñoom ñu yàkkamti bon di ko di di ko xëcc pour dindi muuraay kirlaayam man ça pose problème quoi. dëgg la boo sañoon ñu bàyyi mu sedd. non parce que doomu réew et puis tal nañu yeneen quoi tal nañu yeleen quoi vraiment mois bu nekk ak ordre du jour benn benn fait xam nga c'est pas intéressant c'est pas intéressant. voilà ok c'est